Walf Quotidien lam ñu xëyee waaw yéen kay giir Walf Quotidien dafa xëyee dellu soit argument yi nga xam jamono ji Amadou Ba war na koy teg ngir mën a wane boppam ci élection présidentielle yi ñëw noonu ko yéen kay yi xëy fësale mhm. nee na loo euh, euh, koy mhm. yenn kay gi xëy dellu ko fësal te mooy parti politique yi nga xam ñoo féete càmm ñoom ñëpp daal bool nañ benn dang fas leen taxawal mhm. ab coalition goo xam dañu

yéen kaay gi critique xëyee dellu soir ci wàllu parrainage F24 taxawal nañu ab logiciel goo xam ne ni dañ ci jublaal mooy xeex lépp lu aju ci wàllu doublon yéen kaay gi moo xëy fësal lu euh, gi nag xëyee dellu soir na la ñuy def mu tëj mhm. euh, yéen gi ci loolu la xëyee de l'histoire ci rapport bi nga xam ne Cour des comptes yëkkati nañ ko daal di saa ci gouvernement Sénégal rawatina teg waaye fi mu toll ëpp nañ fukki junniy milliards yoo xam daanaka jël nañ ko ci bor noonu la ko yéene kaay jii di le quotidien xëy fisal euh, yor yor bi euh, yéen kaay xëy dal si ba tey ci wàllu chiffre yi nga xam ñu ngi koy joxe mu soxal euh, wàllu euh, gerte gi mm-hmm. muy at at 2020 jàpp 2021 ndax bu waa BIC joxe seen chiffre wax na ne la am ci wàllu koppar mm-hmm. maanaam ci wàllu gerte waa ANSD moom dañoo génne leneen lu ci des gars yi daal jàpp ne neexul ba neexul waaye ab jiixi jaax am na mm-hmm. ci chiffre yi nga xam ni yenn organes yi nekk ci état ñu ngi koy joxe noonu la ko yéen kaay gi yor yor xëy fësale loo soleil lam ñu jukkil président Macky ci ndajam xelukaay jëwriñ yi la mu bëgg mooy ko ñu defal ko benn cartographie mu soxal zone dégâts ak littoral bi ne loolu lu ko ñor la te nañ ko defal te noonu lu ko yéene kaay kii di la soloy xëy fësal euh, stade lu mu fësal euh, UEFA coupe la Europa League tey lañ koy fas yéene ju Ismaïla Sarr fas yéene wàcc ci bii bu Marseille mm-hmm. lañu Ajax la ñuy fas yéene dajal euh, suñu lamb ci weeru décembre moom la yéene kaay gi xëy fësal li ko war nag mooy weeru décembre weer la boo xam ne nii dañ cee naaj mooy ko ay combat yu bëgg. Mhm. daañu ci bëgg daañu ci daañu ci bëree combat Reug Reug ak B52. maanaam Bombardier Zarko dina ci leela ak Dieye Kaare Diène Kaare Jackson dina ci àll ak kii di waaye am na yeneen combat ku ci mel ni Ama Neex dina ci laal ak bébé Diène. Mhm. Serigne Ndiaye dina ci laale ak bébé Saloum Cheikh Tidiane Niang di ci laale ak Albouri Giro euh, Seras. ak abu Diassé booy Diop 2 di si laal ak caatu géwél. da laay di si laal ak laay Gote.